li nga def ay wax la nee na loo xam ne ku ne xam ne li mu doon ku ne xam ne cofee lañ ci biir fonk bis baa ngi ci biir yu baax yu bari ñi ngi ci biir say jéego yow say wax la moo tax daanaka nañ li ñuy tàmbali rek mu ubbi wax ji waaw jërëjëf di di la ziyaara di feddale cofeel gu rëy gu la ëmbal nga nga ëmbal ma ko it saa yu ñu waxantee rek sa wax kàddu yu njiitu rek mooy namm nañu la xam nga su ma demee ba am loolu ci yow lu rëy la ci rawatina nag jamono ji yàlla tàbbal ma ci ci Tuuba démb ba léegi ñu am mbégte xam ne ñu ngi ñëw ci yow muy ay feddalante yaa lépp loo xamante ne mi ngi may dal ci yoon bi loo loo waxoon la waaw man ñëw naa fi gisoon ngeen ma ñëwaat naa fi gisaat ngeen ma ma fi ñëw ba tey ngeen gisaat ma ku wàññeeku xam nga ku yokku xam nga te yaa ko fi waxoon sama waajur wu jigéen jàpp ko ndax benn vidéo boo wax ne dafa mel ni almet nga suñu xosee tàkk-tàkk ba cofeel googu nag sëriñ bi daanaka ñu la ko ëmbal ci réew mi bari nañu fa ma dëkkee fële ca almadi mbooleem sa taalibi ñu ngi saytu sama karange ndax xam cofeel gi nga ma ëmbal ba cinq cent mètres ci périmètre ñëpp ma jox gëdd ndax sa jëmm maa ngi lay sant bu wér di la wax ni nag leen rek laa bëggoon nga téye ko aajowul tontu xarit lu mu ne war na ko wax soppeem maa ngi taxaw temm ut ut réew mi dama la ko wax nga nga dégg ko rek lii rek laa bëgg nga dégg ko waaw waaw moo tax ma ne na ko dégg rek ndax moom njaaxaanaay la tëddee ku nekk ci réew mi rek bëgg naa am lante ak yow ñi jiitu ak ñi bëgg toog seeni siis man soppe la war naa rek yëgal la te ndax kuy dimbali nit ñi te yoroom réew mi moo yoroom réew mi boo yoreem sa xol ak sa xel yaatu na te rafet rafet boo xam ne nga wone ko li nga wone ñu gis ko dafa doy tegtal ndax nit ku nekk dafa am luy tegtalu ci moom moom nga xam ne moom la ñuy xamee ni kii lii la waaye yow de am nañ ci yaakaar de nee na baat bi nga wax ne boo ko waxee lu wër ci tontu nga yëgal ko rek mu bàyyi noonu <laughs> waaye nee nag li nga wax mënu ci ñàkk sànni baat kàddu yi ma ci sànni mooy yi nga xam ne moo nekk rek melaw ku mën a yor am réew melaw ku mën a yor ay réew sax waxuma benn moom nga yor ci nit ñi yërëm leen bëgg leen yéene leen ñu am jàmm lu ne nga leen ko defal loolu rek sëñ Alassane mooy si liggéey moo lay ba nga yegg si fi fi sa melo rek la ko yóbbu say jikko rek li nga bëgg nag ñoo ngi ñaan ci yàlla nga am ko ni ko bëggee rek barke Sëñ Tuubaa amin dama na ko bëgg a dugal ba ca xale